lii lu ko gën a neex coone jënd ay pièces détachées yu amul benn garantie jeex na tey ba ma xamee Canas Export moom mile moo yor baax baax bi waaw waaw ay pièces détachées de qualité yu jógee ko Canada Montréal loo ci mën ci soxla rek si lu xeetoog wàllum luy jëm ci oto boo contacter numéro boobee ci barre d'écran bi daal di koy am rax si dolli sa xol dina sedd guy ndaxte jaayul lu dul qualité moteur ak transmission moteur Ford Hyundai Mercedes BMW marque américaine marque coréenne japonaise lépp fa am moteur moyen de 100 000 kilos garantie 2 mois waaw waaw ñaari weer laa la wax lampe ventilateur radiateur ak lépp loo yitewoo rek bépp pièce auto buy joge ko États-Unis am nañu ko am tamit pièce en gros am ay huile synthétique Canas Export daal yéex koo xam rek la ñuy jooy waaye yow mu ko xamagula boo jëflanteek moom rek di nga xamante ne yaa ngi dogg a gis baax baax bi waaw kon nag yow mu ko xamagul dawal contact te ko ngir découvrir rek lan mooy sa yi gars yi. mu am internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di am mbégte jàkkaarloo ak yéen tey jii ci beneen anam boo xam ne gëj nañ ko jàkkaarloo ak yéen mbaatam mën naa ne guléet muy bis boo xam ne bis spécial la di bisu mbégte di bisu bànneex di boo xam ne ah, ah, bisu cant la ndax yaakaar naa ni Fatigna ba nu dooree ñu ak moom ba léegi bàyyiwuñu ko yàlla di def ñu ne ci liggéey bi. ànd ceeg moom ba yàlla def tey lii mu def tey muy mbégte ci képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Dakar Buzz rawatina Dakar Buzz social di gën a féliciter sunu frère sunu jumeau Pape ñaa ci lii mu def muy loo xam ne te daa nga gën a ko rëy ànd ak Faty Niang ba yàlla dogal li mu dogal seen diggante ci farata si yàlla sunu Mouhamed yu ñaay lii ñu dugg yàlla yàlla def ci ndam te def ci barke am na nu nañu mbégte lool tey ci jotaay bii nga xam ne tey jotaayu mbégte la bokkul ak yeneen jotaayu daayal jotaayu ñaan jotaayu barke. tey di bis bi nga xam ne Faty ci la ko paab ñaa jël muy borom këram ñuy ñaan yàlla def ci tawféex te def ci njaboot ku barkeel eh, muy bis boo xam ne nag tey bisu cant la tey ngeen gisee jotaay bi rek xam ne tey bisu mbégte la waaye bisu bànneex la ah, ñu war am ay kàddu yu ñu weccoo nag parce que booba léegi ñi ngi naan Pape wax naa ko dem daf ko war a jël daf ko war a jël seen yéen ak seen bëgg-bëgg yàlla dogal na ko Pape jël na ko ci anam mu ko war a jëlee nag seet ay bokkam ba gis ko waxtaan ak ay ñoom. wan leen ni bëgg naa ko euh, donte ci man la nekk itam dama retourné wu dem ci ay kilifaam bon xam ne kii ay boroomi kilifa la ay boroomi mbokk la maa ñaan leen ko ñu may ma ko ci anam yi ma ko war a mayee ci xol bu sedd mën nañ koo séedee dem te nag ñu war a def waxtaanu ñoom ñaar rek xam naa ne waxtaan du yàgg sax ndax Pape ni nii yàkkam ci ne waxtaan wi jeex ba mu daw ànd ak Fatick ñaar Fatick ñaar yàkkam ci ne waxtaan wi jeex ba mu daw ànd mais lépp mbégte rek la dama njëkk ci ki nga xam ne mooy Fatick waxtaan moom quelque baat tey dooru ñëw ci sama si sama doom baay Faty nuyu naa la. maa ngi lay fay. mbaa yaa njëkk a merci. di ñaan sëy bi yàlla def ci barke yàlla juwale la ak sa borom kër te yàlla toftal ci njaboot goo xam ne ñëpp dañ leen di dégg ci lu baax tey lan nga yëg bi nga déggee alxeer yi jib na sa digganteeg Pape. jàmm rek jàmm jàmm rek di ci sant yàlla bu baax di ci sant yàlla bu baax di yëg mbégte contentement tamit tranquillité ak sécurité. lan ngay wax tey ñi da doon ñàgg a ñaanal naan Faty Niang Pape Niang seen couple dafa dafa war a ànd dafa neex ñi ko doon reefee ba tey yàlla dogal ko loo leen di wax. ñooñu maa leen di remercier bu baax ci seen taxawlu ak seen wax yi rafet yu ñu doon wax ci sama diggante ak Pape. tey jii bu ñu demee ba loolu yàlla dogal ko muy sëy boo xam ne tey takk nañ ko ci Faty yàlla sant Mouhamed nan nga fas yéenee gérer Pape nag parce que nag taxawaayu Pape dem ak bu tay bi nag dem am différence de. waaw dina am tuuti différence. <laughs> luy différence bi. Ah, mooy takkuma ma woon te léegi dafa maa takk. waaw dina am différence kay. nga fas yéene koo sëyal ban façon sëy. comme li ma koy waxee démb rek c'est à la civilisation rek. Eh! luy loolu xam nga man damaa jàngul c'est à la civilisation mooy lan. maanaam sëy dina sëy sëy bi. Eh! toog sëy jàpp ci yàlla. Mhm. séyal ko ba mu kontaan. Mhm. di def lu soxna war a def. Mhm. naa ko sëyal waaw. Euh, moom Pape sa borom kërtam ku ne xam ko ci yërmande ak laabir boo amoon loo koy dolli ci loo xam ne gën na koo mu gën koo yësal ci yow ci yërmande. ma koy dolli mooy respect bi rek naa am respect bi ak jàmm ji daal ak tranquillité waaw. Hmm? xam wax la. lu xam wax la. lu xam waa mu wax ma. loo xam wax ko. lu ah. mu nekk sa meilleur ami. jërëjëf dégg ngeen kàddu yooyu Fatigna wàcce muy kàddu mbégte rek ndax bisu mbégte la ma ñëw nag ci suma jumeau suma doom baay suma frère di ko féliciter encore une fois ci lii mu def démb àdduna bi rafetlu ko nag muy loo xam ne sincèrement ku ko dégg rek am nga loo ci yëg ndax yaakaar naa ni sëy fa mu war amee comme yàlla def na nag takk na ko ci fàtte yàlla sunu Muhammad dañuy ñaan yàlla barkeel ko te dëgëral ko Diaz maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fadel di nuyu bépp ami internet. bu Dakar Buzz rawatina Dakar Buzz social képp kuy sénégalais dëkk ci biir réew mi wala nga dëkk ci bitim réew ak foo mënti bàyyeekoo moo xam réew boo mënti bokk diine boo mënti bokk nanga nga yëg ni Pape Niang mu ngi lay nuyu nuyoo bu sell tey di la siyaar di kontaan bu baax a baax ci suñu directeur bu sell bi nga xamante ni mooy DG am di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Pape jërëjëf Aminti Niani tey bi alxeeri jibee sa digganteeg Fatigna ku ne xam ne ni yërmande moo la ci dugal lan la def ci yow démb parce que euh, lu dagan ak lu daganul bokkul. waaw lu dagan ak lu daganul bokkul Fadel Fatigna damay wax ni ndénkaane bi yàlla la ci man Fate Fadel Fatigna euh, soxna la naam ginnaaw bi nga xamante ni. suma sëriñ bu tedd bi Maulana Cheikh sa Diouf yëkkati woon na kàddu man ci sama dund musuma woon xalaat ni Fatigna dina mës a dem ba nekk sama soxna waaye mu mel ni àdduna bi wërngal këpp ñoom ñoo gis yërmande gi nga xamante ni am naa ko ci moom taxawaay bi may def ci moom ñu jàpp ni loolu lu war a mën a nekk la sama sëriñ mel ni ku ko xam daal di ciy yëkkati kàddu ni ma dénk naa la Fatignan su ma gisee ay mbokkam ñu may ma ko mu doon sa soxna sama sëriñ bu fekkonte ni kàddu yi mu doon wax du woon ay kàdduy gor danaan ma pap Fatignan may naa la ko bis ni ki tey mu doon sa soxla sa soxna te su ma neexoon dama naan sëriñ bi daal lay déglu ay ndigalam jël ko commencé ko sàkku mu araam lool ëllëg yomal xiyaam suñu borom duma ci loo duma ma ci loolu waaye sëriñ bi dafa wax kàddu yu am solo mu ni dénk naa la Fatignan dénk naa la Fatignan ci kaw bu ma ko ay mbokkam bu ma gisee ay mbokkam ñaan leen ñu may lab loolee tax yàlla dogal ñuy wër di wër ba Fatignan gis ay mbokkam bi ñu gisee ay mbokkam tamit malentendu bu metti amoon na lu doy waar nag li may wax nii li taxoon ma defoon vidéo doon ci tuub tey jéggulu ndax ku fekkewul li xew ca lañ la wax rek ca lool nga mën a yem ba keroog ngay gis lu gën a kawe loola waaye ay mbokki Fatignan ñi nga xamante ni ñooy ay ndijaayam ñoom temps Sabodou ñi nekk ci kër gi yi nga xamante ni jot naa leen a xam wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na trop ginnaaw ay jàmm te lépp dañ koy sante ki nga xamante ni moo di Amélia Fadel kii nga xamante ni mooy Fatigna wax naa ko ci sama kanami mbokk nee naa leen kii ndénkaane bi yàlla la ci man donte ni sëy dox na sama digganteek moom lu ma doon dund ak moom démb ak bërki démb ci benn ñaar ñett ñeent dama koy duble dinaa ko yërëm dinaa ko yiir dinaa ko accompagner dinaa ko suturaal waaye loolu nag ñi ma kàttanal ba ma mën koo def mooy samay soxna Fadel lu mel nii dafa mel ni bu fekkee mës na am bariwul Fatignan nekk ci diine chrétien man ma nekk ci diine islam ci te baaxoon nañ xam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diine cré doon ay chrétien amul kenn koo xamante ni sëy na ci ak boroom këram nekk ñaareel wala ñetteel kon damay wax ni mbir mi su woyofee ci man ba ma attan ko ba tey jii dogal bii jóg te damay faral di wax ni sëy lu yàlla bind ca aras la jiitu na sunu judd ma koy gërëmee sama soxna muy soxna Maymuna Baaji yi nga xamante ni moom moo ko muñ bokk ak moom lal bi ñu bokk néeg bi ba tey sunu borom dogal lii di ma masaw bu baax ki nga xamante ni mooy sama ñaareel bi di soxna njéeme ndax su ko neexoon mu ne ma bi nga ma takkee léegi matul trois mois nga may takkalaat wujju loolu mën na am lu bari lu mu def ci sama dund waaye may xamal àdduna ni leen du bëgg jigéen moo tax ma takk Faty ndax ku yor ñaari soxna yaakaar naa jigéen yaakaar naa am nga ci lu bari di gërëm bu baax a baax a baax samay mag ñoom Adja ñoom Awataal soxna Jokko samay ndijaay samay papa ñoom Pam Mbay Mbuub ñëpp du bàyyi kenn taxawu nañ ma taxawaay boo xamante ni nii la ñuy taxawoo ak mbokk ak mbokk kenn du ko dox ci ay groupe whatsapp su leen neexoon sëy bi ñu takkee ko ci groupe whatsapp wootante ci groupe whatsapp ni pare nañ ci waaye dañoo soqi jéego ñëw taxaw taxawaay bu am solo sama ndijaay As mbaay di gërëm wax dëgg yàlla sama mag di mbay mbubb ñang di gërëm bépp ami internet képp koo xamante ni gis nga Fadel lii nga xamante ni am na démb yàlla xam na ni ñi ci jooy dafa bari ñu bari jooy nañ ci ni Fati Ñaade sunu sañoon kenn du doon borom këram ci kaw suuf ku dul sama jëmm ji moom mii mu ma daan wax ay kàddu yu yéeme ni ma pap bul ma mës a bàyyi aw ma kuddul yow bul ma mës a abandonné te loolu mu wax loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo dëggal sëy bi ñu dox bi sëriñ bi yëkkatee kàddu yooyu noonu cofeel juddu ci man sama diggante ak moom ndax néegu sëy dafa xat te lal bi dafa xat ñaar ñu bëggante rek ñoom ñoo ci xaj te gëm naa ni man ak Fatigna fi mu toll nii xaj nañ ci lal ndax sama xarit la sama soppe la sama complice la yàlla xam na ko ma jur nag doomam doomam ji nga xamante ni yàlla nattu na ma amaguma tut tànk yi déedéet am naa tut tànk bébé Cheikh mooy sama doom te dinaa ko féete fi nga xamante ni fa la baay bu baax di féete doom ju baax ngir lan yaayam ju baax Fatiñaa duma ko bàyyi ilaa yawmi diin Fatiñaa duma ko bàyyi li may tàllal loxo nit ñi kay ñu ñaanal ma li ma bëgg ci moom rek mooy yàlla na ko yàlla dolli ak wér loolu laa bëgg dégg nga ko ni mu ko waxee léegi Fadel nee dina ma sëyal dina ma dina ma dina ma suturaal dina ma taxawu te loolu noonu mbëggeel googu noonu moo ngi ci moom kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Fadel di gërëm sama ñaari malaaka yi ma leen bàyyi ginnaaw mukk déet laataa nga gërëm moom moom sa soxna laaj naa ko ay kàddu yu mu lay dénk yow yan kàddu goo koy dénk ndax tam sëy waxtaan la ak dénkaane ak loo xam ne mooy dëgëral sëy loo koy dénk Fatignan awma lu ma ko dénk xam nga lu ma koy dénk mooy rek na ma déggal kese dénkuma ko leneen déggal gi rek te xam naa ni loolu dina ko def su doon keneen la dina ko dénk ay dénkin yu baree baree bari waaye moom li ma koy dénk ci man la nekk kon man maay dénkoo mbir yi comme ni ma ko waxee ndénkaaneb yàlla nag bu la ko yàlla dénkee la war rek mooy nga téye ko te yàlla tax. Euh, Pape laata see bi ñu gis affaire bi ay xarit ngeen parce que yaa Faty Niang mën ngeen waxtaan di composé xaritoo googu parce que laata see bi bu mel ne kon ànd bi warul nekk lu difficile parce que xaritoo gi moo jiitu. non ba léegi sama xarit la xaritoo gi yàlla da ko def da ko def lu jiitu sax lii di am man dama daan toog ak samay soxna sax ñu daan euh, yaakaar naa mës naa toog ak soxna May. mu daan ne ma pap ma ne ko ah, mu ne ma est-ce que Fatigna nobu la ma ne ko lu tax mu ne ma non damay xam ne yow boo xëyee dem gis nga boo solo ba dugg ci biir kër gi rek xool bët bi mu lay xool ak bët ba mu doon xoolee dafay mel ni dafa wuute bu la neexee nopp ma yaa tey Fatigna su la neexee nopp ma man nopp naa la ba dee. Fatigna mbaa nopp nga <laughs> <laughs> non waxuma nii Pape daf ñu nopp naa la yow nag. waaw. waxuma de day leer ndax paab daf ñu nopp naa Fatigna Fatigna lay laaj ndax nopp na Pape. waaw nopp naa eh. kon ñoo ak yaa ngoon fu am solo muy sa malaaka yi parce que tam doo lay jën ndox liggéey bi soo ci mënee soo ko mënee entamé ba am ci ndam li am na ñoo ci àndal ñoo xam ne man mën naa ci doy seede euh, parce que loolu jël sox ñi ñëwaat ci ginnaaw seen diggante ak ñooñu nga ci àndal tey ba lii mën a taxaw ñu jàppale la ci loolu nag. waaw euh, Fadel loolu dafa dafa dafa kawe dafa kawe kawe goo xamante ne nii euh, dama bokk ak ñoom deret deret nag léeg-léeg nga dégg baatu olof ñu naan juddu gu rëy ndey ak baay mais ñii dama bokk ak ñoom ca ësël démb laa bokk ak ñoom tey soog a ñëw muy baay paate ak baay wuri ak ki nga xamante ni moom moo di Sëwru Fall di sama rak moom baay Assène moom baay di Ndiaye numéro un numéro deux membre association bi Matar Faye particulièrement mataar fay Grand Médine sama xarit sama complice dund dëgg ak njub te jëmmi yàlla tax moom laa àndee ak ñoom waaye mention spéciale association taxaw ñu wéradi mention spéciale sama rakk soxna ajaratu asuña nekk fële ca Canada Fadel damay sant de wax dëgg yàlla ki may sant moom mooy ki nga xamante ni mooy soxna Ndey Fatou Diop nekk fële ca Greensboro North Carolina di gërëm bu baax a baax a baax waa AATGW sociale ñoom ñi nga xamante ni tey su ma ab su ma dugg taxi wàccee su ma luye oto jàmbur wàccee su ma dugg ci ay moto wàccee grace à ñooñu la ma leen di sant di leen gërëm ñoom ñi ma may oto waaye may sàkku ci nag ñi nga xamante ni ñooy seetaan Dakar Buzz ak fu ñu mënti nekk nekk ci TikTok bi nekk ci Instagram bi Fadel Niang sama doom baay taxi lay jël ba léegi dafa mel ni man ñaan gi ma ñaanoon nangoogul ay waay na ñaan gi te ngeen a jàpp ci ñaan gi mu nangu te yàlla tax damaa bëgg nga am oto Fadel yow boo amee oto rek jàngoro yi wàññeeku xiif gi jóge fi tumuranke gi jóge fi lu bari dana fi jóge Fadel billahi lazi la ilaha illallah ñu bari dañ may woo Fadel na nga def man leen maa ngi sant yàlla ñu ne ma ah dañoo am fi benn cas man leen wallaay moom la de kaa yi kay moom Fadel mooy borom. kaa yi dañ may woon naa Pam naan ma Pam ñaan na nga def te maam bi benn kaa di koo xam ne daa sonal yaayam. ndeysaan ndeysaan Fadel ndeysaan wax dëgg yàlla maa ngi sant awataal maa ngi sant suma famille yëpp di sant famille Fatigna ñëpp di sant bu baax a baax Amélia Amélia maa ngi koy sant di ko gërëm ndax ca tàmbali ba moom la waaye wax dëgg yàlla maa ngi koy sant di ko gërëm particulièrement maa ngi sant Mami Diouf Mami Diouf yal na la yàlla fay Mami Diouf Mami juuf yal na la yàlla fay sa taxawaay rafet na bëgg gi ma bëgg rafet na fonk gi nga fonk Fatignan rafet na damay wax ni bis ni ki tey képp ku bëgg Fatignan damay wax ni bëggoo ko mën nga bëgg ku bëgg Fatignan bëggoo ko mën nga bëgg te ku ko bëgg bëgg naa la. Pape lune de miel bi fan la. fan la. fan la lune de miel. xamaguñu fan la ñu ngi xool entre Ngor ak Saly. entre Ngor ak Saly. waaw mais ba tey trouvé gu leen fenn wala da ngeen a bëgg ba ngeen bañ ñu xam fa ngeen jëm. bañ du loolu Sani entre Ngor ak Salida. fan nga choisir. man Ngor laa choisir mais dafa jege. Ngor dafa jege. dafa jege loolu nar ci pap ba bëgg fu sori. <laughs> jàmm rek. jàmm rek. Ngor dafa jege. daa lii ndax dina jur jàmm parce que nee na daa jege. xam naa day Fatigna loo bëgg ci man. xam naa daf ma bëgg yóbbu fu ma mës a dem. da pare nga pour dem. man kay pare naa fu ma woo ma wuyu ko. da pare nga pour yóbbu. waaw pare naa pour yóbbu. yàlla ci yàlla def barke eh, kii tëjee nag mooy sa wasila. duñu wax ba bàyyi te tudduñu ko ndax lii lépp sabab bi moom la tey sa wasila sa digganteeg moom. Mhm. sama digganteeg moom Fadel lu yéeme la waaye lu yeete la dama nekkoon jëmm joo xamante ni dama teel a ñàkk ñaari way jur quatre-vingt-quinze la sama papa ak sama yaay génn àdduna. sama yaay mi ngi génn àdduna le 20 novembre 1995 euh, sama papa mi ngi génn àdduna le 5 décembre 1995 15 jours la ñu rawantee ñu nekk ay xale yu ndaw am ma am 14 ans nekk samay mag wommat ma tette ma yiir ma yërëm ma jàppale ma ba ci benn tolluwaayu ndaw te kenn ku ci nekk xam na ndaw ak tolluwaayam sama tolluwaayu ndaw nag ma nekkoon di dawal saret di dawal saret di tox cigarette nekkoon ci sareetu gaz yi amoon ay melo yu doy waar wax dëgg yàlla man daal bis rek ma gis sama benn xarit boo xamante ni bis bu yàlla sàkk mu may woo di waxtaan ak man ci yàlla di waxtaan ak man ci yàlla waxtaan bi muy waxtaan ak man ci yàlla soof ma lool soof ma soof goo xam ni ndax booba lu ma waay wax lu dul jenn benn benn benn tarixa pour man du dëgg waaye sunu borom dogal rekk ma jàppante ak moom mu tarbiya ma tarxiya ma xamal ma yàlla ak gale ma ci yàlla won ma yàlla may jaamu yàlla ci tawxiid fadel gëm gi ma gëm yàlla ci sama xol bii tàggat gi nga xamante ni Cheikh Idrissa Diouf tàggat na ma ko yar na ma yor na ma yiir na ma yërëm na ma moom Balla Aïssa def na ci man diine joo xamante ni nii tey Fadel nii nga xamante ni maa ngi koy waxee yàlla xam na ni daf ma daan tàggat ci ay kàddu dama daan toog ak ay kilifa diine yu màgg toog ci seen biir di wax luñ dul dindi may wax loo xamante ni dañ naan kii di wax mooy kan mu ma ci daan tàggat di ma ci daan tàggat waaye ci biir tàggat bi ma daan tàggat dama daan dégg Maulana Cheikh Idrissa Diouf ci ay kàddoom daan wax ni maqaama bi gën gën a màgg ci màqaamay yàlla yi mooy ban ñu ne ko sang bi mooy ban mu ni rahmatan lil alamina fas yéene doon yërmande yàlla ci jaam ñi kon maqaama boobu dama dafa mel ni moom laa ci doon roy ku wax rek mu ni la ku la gën ku gën dalaa gën a nangoo jaamu yàlla ku gën dalaa gën a ragal yàlla ku gën dalaa gën a bëgg jaami yàlla yi yërmande gi nga xamante ni def na ko ci man yërmande googu dama daan gis moom da daan togg këram bool yu bëree bëree bëree bëri fu waay jóge dangay ngay ñëw barkeelu maa ngi fàttaliku sax ay jamono bu la daan invité reer du la seexlu day bokk ak yow reer bi cere lañ daan reere waaye boo reeree cere bi ba mu yàgg rek bu cere bu ñeex mi jeexee nga bëgg a dem danaan la déet goreel ñoo bokkoon ca ñeex ma kon nañ ko bokk eggale ko ci ndox mi Mawlana Cheikh Idrissa yàlla na ngi fi yàgg te wér ak mbooleem daara Miftahul Salaam képp kuy doomu aadama daal na yëg ni maa ngi lay sant di la gërëm di gën a gërëm sama ñaari soxna yi may mun a baaji di gërëm ummi njaay mi nga xamante ni moom moom mooy téye sama doom muy cheikh moo koy nampal moo koy taxawu moo nekk moom moo koy defal di gërëm bu baax ki nga xamante ni moom moo di doomam di awa ñang di sama doom ma koy sant di ko gërëm ñoom ñooy yor ki nga xamante ni moom moo di bébé cheikh di gërëm bu baax nday Diop di gërëm bu baax ak sa Mbaye yàlla na leen yàlla fay yàlla womat leen ba sunu kër ngeen ñëw toog di ñu muñal amuñu seen fay benn sëy neexul waaye seenub sëy de incha allah dana neex. jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz lii moo nekkoon waxtaan wi ñu jàppoon ak diggante Faty ak Pape ñaa lii rek trio la Pape Niang Fadel Niang Faty Niang du hasard na ko nit ñi bàyyi xel nag te ñaan see bi yàlla def ci barke te toftal ci njaboot goo xam ne ñëpp dañ leen dégg ci lu baax nan leen ñaanal te puus leen lindemeel bi nag à suivre la man maa ko xam naa ko dana leen fan la. comme dama koy nëbb naa ko ànd ñoom nëbb ko rek jërë ngeen jëf ñu topp leen li nga xam ne mooy xew mi jaajëf ki jublu sama ñaareel xaritu jëkkëram macha allah di premier njëkke ñu féetale ko Fatima mi nga xam ne sunu doom la tubaarkàlla macha allah man sët laa ko def dama ne ko yow sama sët nga doo sama doom macha allah nag mu ñëw ca kër ga nag sama njaboot gii uuf ko bëgg ko ñëpp a bëgg Fatima ñëpp a ko teg ci kaw ñëpp a ko jàppale damay jiital nag Oumy Ndiaye mais ndax Fatima dafa ñëw ci kër ga ñu teg ko ci aaw buuru këram mi teg ko ci loxoom seetaanu kook moom mi ngi létt mi ngi sang ba mu set mu ngi solol yëre yu set mi ngi fóot ba yàlla def mucc ak jàmm kii mën na koo téye kii mën na koo téye waaye dafa jiitu ca kër ga ku ñëw mu uuf la Fatima ñëw mu uuf ko ba yàlla defee mu mucc ak jàmm ba sunu jonn yàllaay tey première guddi ga lii la fanaan ca biir kër ga ba tey fi ma taxaw di wax ak yow ci néegam lay fanaan damaa ñëw mu ne ma maa ma ko am ah, na damaa amaat doom ma ne ko amaat doom ku moom lii mu ne doomu Fatima bi la maa boobu léegi maay téye maay sang maay defar mu aye jëkkëram ak mu ñàkk aye jëkkëram mooy fanaanoo liir bi dina ko téye sang ba mu set xale bi foo ko yëkkatee sa xol sedd ndax day xeeñ lu neex li ma bëgg ci bébé ñu koy ñaanal moom it li mu bëgg si ëtt ñangeen be yàlla na ko yàlla may ci barke Seydina Muhammad maa la ko ñaanal te su ma leen ñaanalee rek barka Rasulullah tibbe ko sama xol bii yàlla da koy def ndax xangul tax sama mag ja dañoo bokk benn baay bokk genn geño bokk genn deret mu bëggoon nag ay rakkam lool kon tey bu yàlla defee mu wane ginnaaw ma des benn baraag nekk ak yéen gis la ngeen di jëf sama kër mag mu neex ma lool kon su ma leen ñaanawee day dal maa ngi leen di ñaanal yàlla de yéen ñii di jeegu ñangeen ne ci sama kër mag jee maa ngi leen di ñaanal sunu borom yal leen yàlla dolli sutura yal na leen yàlla musal ci seytaane ku fa dugg di leen jaxase mbaa bëgg leen a yàqal seen kër googu yal na ko yàlla dëpp ci barke Seydina Muhammad yal na yaa raxas xol yi boole xol yi waa peñe bii nag sama goro bee toog jël ko ñaareel papa mooy premier njëkke mooy njéeme mooy premier njëkke moo ñëw nag jàkkaarloog séeréem bii jox ko peñe bii nee nag ak yéene macha allah di ñaan yàlla nag may leen njaboot ca kër ga njaboot gu ànd njaboot gu déggoo loolu laa di ñaanal nee na nag moo ko jox peñe bii ci xol bu sedd guy fa séenee ànd ak moom nag jàppale ko yërëm ko téye ko ak fukki loxoom njéeme ma nga nee toog allah mooy njëkke li mooy premier njëkke waaw peñe bala lay cee des peñe bee Oumy indi sa peñe da ngay téen nang sit gi ndax tubaarkaal na dangaa jiitu ca ëtt ba uuf say rakk jaaxalooñu waa siggil nga gàddu sa peñe ñëw daal di ñaaj ak moom ba nii waa bëgg naa lii ñëwal may ko may ko mu ñëw taxawal nii waa aawo sóora nekk nii mooy deuxième njëkke aawo sóora mooy deuxième njëkke moom mooy mooy mooy yaayu euh, Pam ñaa mu ndaw Pam ñaa mu mu mu mu mu fàtti ñaa kii mooy yaayam moo jàppale waxala pare asalaamaaleykum maa leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp wax dëgg yàlla kër kër ña ngeen daal man wax dëgg nekkatuma fa sax na Njaay laa sant man ak ñoom ñoo bokk samay doomu nijaay lañ maay seen doomu bàjjan wax dëgg yàlla cër bi kontaan naa ci trop trop trop trop te fati lépp lu ma ko yéene li nekk sama xol daal mun ma kaa wax macha boo nee li nga yéene Fatima ñun dañ koy gëm ndax Fatigna mii ba muy ñëw ca kër ga am na noo leen doon doxale rek man mii di seen yaay maay soo sama daal di ñëw di sang Fatigna ba mu set di fóot ay yërëm ba mu set yaa may dégg mais dafa am na ngeen doxale mu rafet lool ma kontaan ca lool macha allah aaw bi nag moo nekk nii bi téléphone aawa yaay aawa yaay aawa yaay yaay sunu aawa yaay sunu yaay aawa yaay macha allah waaw tubaarkàlla mi ngi nii nee naa ko na siggi téeméer naa ngi ci kaw dangay ngay siggi jàkkaarloo nit ñi ndax nag munaas dangaa war a siggi xam nga war a siggi man maa togg sa laaxu séet man maa togg sa cerey séet te ba nga toogee ba tey jógoo yaa may dégg Adja fekke ma damaa togg ay laaxu séetam togg cere seetam te mu toogee ba tey jógul la may nekk ca koñ ba jege lool yaa nga si te jii li mbay ak maa mënoon di dégg waaye dégguma dara lu ñaaw ci moom barka alxuraan dégguma dara lu ñaaw ci moom mii mu toog nag di muñ man xamaluma ko xiifam damay waxta yaa rek xata xamaluma ko xiifam xamaluma ko maram xamaluma ko raflem ak ma ko waroon a mën a xam ndax seen goro nee naa leen képp koo leen man sànni ngeen ko dama leen koy waxaat tey may seen goro te déggalu ma leen nag dara lu ñaaw macha allah yal na leen yàlla jàppale toogal seeri Oumy Ndiaye ni jógal ñëwal ni tubaarkàlla ki ki ma naan leen moo jàppale Faty Niang kii mooy rakkam moo ñëw nag moom it tafu ci kawam def ko léppam li ma ne ko rek ku ñëw nga uuf ko macha allah daa uuf ñëpp rakkam ji it ñëw uufu ci kanamam yaa may dégg kenn nee na ko benn bis man de ummi Ndiaye xaw ma woon dangaa am wujju Fatigna nee na ko ma woon ne dangaa am wujju de xaw ma woon ne dangaa am wujju te xangul tax ko waxewu ko kii di rakkam nag ñooy moom it tafu ci kawam macha allah. waaw ñaareelu sóoraa ngi noonu waaw waaw macha allah macha allah waaw kii moom day seeri caat di sama doom ma bëgg ko lool nag macha allah mu nekk ca koñ ba moom it <laughs> moom daa juddoo ca koñ ba yaroo ca koñ ba ñu takk ko ca koñ ba. doxul ba yàqu waxul ba primé macha allah moo tax bañ ko bëggee may leen jël leen jabar la yem na ci loxoy yaayam toog na réglé na macha allah bañ jël ko dugal ca kër ga jaaxaloo ñu benn yoon macha allah <laughs> dama macha allah caata ngi nii macha allah <laughs> xaritu jëkkëram <laughs> taareel taareel ñaareelu paa ngi nii nag waaw ñaareelu paa Sidi Faty Niang mi ngi ne ñëwal ñëwal kaay ñëwal Faty macha allah aawoon ci digg bi ñaareel bi laa nii ñette mooy Faty Niang macha sama caatu goro ngi ne sama caatu goro <laughs> macha allah macha allah yal yàlla defal cat ànd bi rafet na kontaan naa ci yéen macha allah waa Seydou Wuré ngi nii doomu nday Papa Seex waa kii mooy Soka. séeri wuri du ay fo macha allah sokaa <laughs> ngi nii séeri wuri macha allah macha allah sunu caat maa ngi nii nag macha allah xaytu Fatiña waa bëgg Fatiña lool bëggul dara naqari ko macha allah dañuy ñaan yàlla yàlla eggale lépp jubale leen musal leen ci seytaane toogal waa macha allah jarbaatu papa Cheikh waa ànd ay yumpaañam rek ñëw nag dar yumpaañam ju ndaw ji mu neex macha allah. laftar rek sama wujju la nag waaye mën naa ko dàqale sañse <laughs> macha allah kon may wax la ci papa Seex ci sama doom ji may wax ci paa tubaarkaala li ma leen wax sànq rek paa képp kum dimbali rek da ko da koo war da koo doon doon na ko ci ndeyam doon na ko ci baayam doon na ko ci magam yi toog macha allah yal na ko yàlla fal cat ndax wax ji du gudd yal na ko yàlla fal cat. loolu lañuy ñaan ak sóora bàyyuma kenn euh, mbay awataal maa ngi ñaanal ñëpp yal na leen yàlla fal cat ba ci amet caat mi ñëpp ak as seen sama doom jooj ca Canada. salaamaaleykum dama sant yàlla di julli ci yeneen bi sangu-sang yi di sant suñu ñaari wayjur yi di sant suñu ñaari wayjur yi maa ngi sant sama rakk yi baax commencé ko ci sama taawu yaay bi muy awataal taal nga xam ne mooy suñu yaay Fall maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak mu yàgg fi lool bañ di koy yóbbu màkka bie di tegaloo maa ngi ñaanal am am mbay nga xam ne mooy bàyyu xale yàlla may ko gudd fan ak wér ngi ñaanal papa Cheikh ñang baala loo mën ren yàlla na nga mën déwén lu ko raw yàlla bàyyi la ak sa njaboot bàyyi la say jabar liggéey bi ngay liggéey di ko defal yàlla te yàlla rek tax yàlla na la ci yàlla jàppale yàlla fekk la ci yàlla taxawu la ci ci barke yenent bu tedd bi maa ngi koy ñaanal bu baax la ñaanal yàlla jiboole la ak say jabar jiboole la ak àdduna bi ba liggéey bii ngay liggéey yàlla daal yàlla na la ci yàlla saxal dàkk nga yàgg ci lool ànd gudd fan ak ñëpp ñi ngi ko àndal ànd taxaw ñu wéra di ñëpp maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax duma lim damay jum baay paate nuyu naa la bu baax sama rakk ji yow ak wuri man awma seen fay bëgg ngeen paa jàppale ngeen ko barke yeneen ci bi maa ngi gërëm Fadel ñaa Fadel lu paa mën yow la Fadel seetaanoo paa bàyyiwoo paa fu paa ne ma nga fa li paa di def bu ci mënee lii rek da nga cee jàpp bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya ñang baala yow ba ngay ànd ak paa xamoo sax ngeen bokk biram xarek biram naar waaye dangaa ànd paa àndu ngor ba mbokk feeñ ci kon aw mu ñu sa fay na la yàlla fay di gërëm sóora sama rakk ju góor ji jom ak ngor rek biram xar biram naar moo la tax a tuuti am nga jom am nga ngor bàyyi faal nga taalibe maam Cheikh Rafaal nga yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla bàyyi la ak njaboot bàyyi la say jabar ba seen yéene ci ñun yàlla mottali ko di ñaanal sama caatu yaay mi Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla defal jàmm ci barke yenent bi di ñaanal Assane Diaw sama doom ji yàlla defal ko jàmm Euh, maa ngi ñaanal sama jabar yi nag commencé ko ci ummi Ndiaye mi jiitu ca kër ga jëm suuf di ñaanal papa ñang sama doom ñang baalo yàlla na sa taxawaay yàgg ci say ci say baay ak say mag ak say rak ci barke yeneen ci bi maa ngi ñaanal may mu a awa papa Cheikh maa ngi ñaanal Ndey Diop ñaareelu papa Cheikh maa ngi ñaanal njéeme maa ngi ñaanal njéeme ñaareelu Pape Cheikh Ndeye Diop ñaareelu sóora la moo tax mu ree <laughs> dama mooy sóora papa seexay sóora kon yow wéeroo <laughs> dégg nga waaw kay di ñaanal njéeme ah maa ngi koy ñaanal bu baax a baax ñaareelu Papa Cheikh bi nga xam ne dafa ñëw barki Dembo Ndiaye amu fa ñeenti weer paa di ko may Fatiña mu ànd ci nangu ko lool pour uufle ko Fati kon maa lay ñaanal bu baax si sa ngaar waaye maa ngi ñaanal chéri caat chéri caat maa ngi lay ñaanal mbay assa maa ngi lay ñaanal de sama jabar ji ñaanal naa la bu baax a baax waaye Faty Niang nag damaa bëgg ñëpp di ko woowee princesse paane na na ko ñëpp woowee princesse moom mooy caat kër ga daal maanaam jeeg dootu fa dugg jeex na terminé caatu goro baa ngi nii c'est fini jeex na ah ah kon kon ah, ah déedéet mani mani Faty daal mooy caat <laughs> jërë ngeen jëf kontaan naa dégg ngeen merci kontaan naa maa leen di remercier bu baax kontaan naa ci ñoom kontaan naa ci seen taxawaay merci. kon ñu nit kontaan nañ ci yow kon yàlla jàmm yàgg ci barke yeneen ci bi kontaan naa. ngay jënd ay pièces détachées yu amul benn garantie euh, jeex na tey ba ma xamee Canas Export euh, moom mile moo yor baax baax bi waaw waaw ay pièces détachées de qualité yu jógee ko Canada Montréal euh, loo ci ci soxla rek si lu xeetoog wàllum luy jëm ci oto boo contacter numéro boobee ci barre d'écran bi daal di koy am rax si dolli sa xol dina sedd guy ndaxte jaayu la lu dul qualité moteur ak transmission moteur Ford Hyundai Mercedes BMW marque américaine marque coréenne. japonaise lépp fa am moteur moyen de 100000 kilos garantie 2 mois waaw waaw ñaari weer laa la wax lampe ventilateur radiateur ak lépp loo yitewoo rek bépp pièce auto buy jóge ko États-Unis am nañu ko am tamit pièce en gros am ay huile synthétique kanas Export daal yéex koo xam rek la ñuy jooy waaye yow mu ko xamagul boo jëflanteeg moom rek di nga xamante ne yaa ngi doog a gis baax baax bi waaw kon nag yow mu ko xamagul dawal contacter ko ngir découvrir rek lan mooy secret yi gars yi